nar a waxtaanee dem fi nga xamante ne moom mooy euh, ca euh, France ni fukki fan ak juróom-ñeent euh, kon nag dinañu daal di amal ab ndaje bu yaa ngi xool ana yan coppite tëggin yu yees yoo xam ne dañ koy amal ci wàllum Gavi nekk ab alliance boo xam ne ci àdduna wërngal këpp ci wàllum vaccin di ko lëkkaloo ak Union européenne ngeen jàpp ni mm, Union africaine ngeen baal ma mais rek dëkk yi nekk ci biir Afrique ak li nga xamante ni rek moom mooy forum mondial bi ñu amal ci wàllum ku ci nekk. nekk nooy def rek ba mën a mënal sa bopp ci lépp lu jëm euh, ci wàllum euh, vaccination bu ñu sukkandikoo euh, ci waa présidence ñoom nag ne nañu bii le nag ndaje nekk na bu yaa boo xam ne lancement initiative bi ñu mel na nag nga xam ni moom mooy avement li nu mel nag mooy daal di taxawal campagne boo xam ne nañu amal ay fonds yu bare bari ngir atum 2026 jàpp 2030 opportunité investissement bu nag euh, Gavi bi dinañ lever ay fonds yoo xam ne ci wàllum vaccination rek lay jëm euh, ci dëkk yi nga xamante ne daanaka seen yoxu jotul seen ginnaaw noonu maanaam dëkk yi di guddoom yoo xam ne ci wàllum xaalis ñoom nag bu noppee ci boobule forum rekk daal di euh, jàkkaarloo ak ki nga xamante ne moom mooy njiital réew ma di Emmanuel Macron ngeen jàpp ni rek lii moo doon génn bu njëkk ci continent bi eh, ci Bassirou eh, président Bassirou Diomaye fay eh, gannaaw ba mu falo ba léegi de ñu daal di wax ci beneen xibaar bokk na ci bala Moussa Fofana moom itam daal di nag yor lépp lu jëm ci wàllum urbanisme moom mi nag ci liggéey ci wattaak ak tabaski gi bu mu jàllee ba noppi itam ñu bëgg rek daal di seetal dëkk bi moo tax nee nañu ay mbalit mu bare bari nag jot nañ ko rek daal di euh, tonni ci ay gox yu fasantikoo ko ci biir réew mi mu daal di rafetlu bu baax a baax matuwaay nga xamante ne liggéeykat yi jël nañ ko ak liggéey bu màccu ay bi nga xamante ni def nañ ko ñu teewlu ko. sunuy ndaw lañu di def liggéey bu am solo xam nga tey daanaka bokk na ci bés yi gën a liggéey feet yi gën a mag sunu réew bu nit bàyyee njabootam bàyyi waa koñam ñëw di satal dafay jaadu pour que seen jëwriñ ñëw ci seen wet jaaree njaareem laa ko dooree ba Ndakaaru tey ñëw gisal gisa giseek ñoom wan leen ne li ñuy def dafa am solo wan leen fiñ fi ñoom fi ñu toll si ñun ak li ñuy def ni mu amee solo si ñun loolu moo gënoon a euh, soxal tey déplacement bi ma def ci site yi rencontrer nos nos agents waaye li ci gën a am solo tam mooy dafay am solo souvent ngay dem sur le terrain gis nit ñi xam réalité yi waxtaan ak équipe de gestion bi ma leen di jaajëfal mooy jëwriñ ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk liggéey bi muy ci région yi comme à Dakar véritablement fekk naa ci ñoo xam ne danoo liñ naan yéenu ko tu xaj dañu yëgoo fekk naa fi ñu yëgoo fekk naa fi ñoo xam ne véritablement képp kuñ teg fenn rek ñu ngi waxtaan ak yow di la jàppale ndaw yi tam ku ma ci waxal dinaa gis ne yëg nañ la wekk nañ la et xam nga ne bokk nga ci équipe bu baax et yaa ngi góorgóorlu loolu ma am ci vraiment satisfaction am ci mbégte lool li nga xamante ni nag jàngat naa ko ci liggéey bi mooy jafe-jafe bi bi ñi gën a am mooy yenn saa yi ñuy bàyyi ci ci mbedd mi ni ñuy jàppi occupé mbedd mi ne mbedd mi mbeddum buur la ba tax sax buñ jógee bëgg a setal setal boobu day jafe ndax ni nu occupé mbedd mi te mbedd mi du mbeddum buur mbedd mi mbeddu nit ñee ko bokk voilà te kenn ku ci nekk danga ko war a sàmm te loolu nekk na jafe-jafe boo xam ne incha allah daañ ci xool naka la ñuy def ba jafe-jafe yooyu euh, encombrement bi ni ñu koy tuddee mooy maanaam càng càng-cangal yi ñuy <laughs> def ci dëkk bi nga xam ne loo bëgg a def càng foo mën a jaar doo yegg loo bëgg def du yegg loolu incha allah daan ci kon nag mu ngi noonu nekk ministre bu ñu dénk wàllum urbanisme cet gi itam mu nekk ci ay loxo moo tax rek doon saytu gannaaw bu ñu tabaski ba noppi xam ngeen ni nag daanaka lu ci bëri eh, ci mbalit mi day bari loolu ci biir dëkk bi kon nag mu ko doon saytu ànd ak ñiy def liggéey bi nu mel mu ko doon rafetlu bu baax a baax kon bu ñu noppee ci lu nu mel daal di tàbb waxtaan ak ki nga xamante nag moom mooy njëriñ bu njëkk bi fi nekkoon ki nga xamante ne moom mooy Amadou Ba gannaaw nag bu ñu tabaske ba noppi ay kàddu la daal di yëkkati bokk na rek ci wàllum ndaw ñi nga xamante ni am nañu solo loolu ci biir réew mi waaye nag bu ci noppee itam lépp lu jëm ci wàllum pétrole ak gaz fi ñu ci toll ak fu ñu nar a jëm ñu teewlu ko. dina ñëwaat ci aspect yooyu yëpp euh, parce que euh, liggéey naa ci lu bari ci at yu weesu euh, xam naa ni de delà de l'exploitation xam pétrole ak gaz mën na amal njëriñ askan bi njëriñ bu am am solo waaye it nañu jàpp ni ni ko nit ñi jàppee ni ko nit ñi yaakaare du doon rek loo xam ne tey tey lay sotti wala tey tey rek lay lépp di soppeeku kooku aussi baax nañu di ko ñu di ko fàttali nit ñi moo tax man bariwuma ci li ma ciy wax ndax am na nooy yaakaarloo nit ñi mën na demee noo xamante ni nit ñi seen yaakaar dafay tas ndax il ko que mu am nu mu taxawee am ay at tuuti balaa ñuy mën a gis la nga xam ne dina ko jariñ ba ñëpp mën ko ku nekk mën ko yëg kooku processus bu gudd la boo demee ci réew yi ko am da ngay xool ci at yu bëree bari la réew yu toll fi ñuy doog a toll kon ñu nit foog mu am euh, ñu ñu muñ tuuti mais incha allah yooyu yëpp dinaa ci dinaa ci dinaa ci ñëwaat. dinaa ñëwaat. mu ngi noonu mu nekkoon nag euh, ki nga xamante ne moom mooy Elimane Ndione ñu nekkoon na fii ci biir réew mi di Amadou Ba kon tamit ci élection présidentielle yi ba mu caat ci lajj ci atum 2024 ñu daal di waxtaane wàllum koom bi la yoon ab reportage bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi ko doon def fële ca Sikicoor ci gis-gis nag ni ngeen ko gisee nii loolu nee na yëf yi daal di doxee ndax nee nañu Ziguinchor mu mel ni ah, kenn nekku fa ci gannaaw tabaski bi mu paasee li jëm ci wàllum ay ah, boutique magasin ah, tamit grande surface ñoom ñëpp rek daal di tëj bokk na ñi nga xamante ne ñoo ubbi mooy ñi nga xamante ne ñooy jokkalante ci wàllum xaalis ñoom kese waaye nag li ci des moom dañoo tëj donte sax li jëm ci wàllum température yu nag sedd dafa nekkoon Euh, ngir rek xaw a du loolu ak ngelaw bu ndaw boo xam ne rek taxoon na ba temps bi féex waaye nag taxutoon ñu génn dem rek nekk ci magasin yi kon mu nekk daanaka ville morte comme niñ ko woowee ci nag rond point Jean Paul II ni ngeen ko gisee ci nag euh, li jëm ci photo illustration bi ci li nga xamante ne rek moom mooy nga xamante ne euh, trafic bi dem ak dikk bi da daan tar loolu metti lool ba sax ay yi daal di fa metti bu baax a baax waaye nag mu mel ni lépp yemb structure privé ak ñoom gis nañ ni waruñu rek daal di fonctionner bokk na ci beneen ville côté nag Bukot ak yeneen i nag bërëb foofee ca Sikicoor ba tey rek dañoo set wicc doo gis kenn. képp koo xam te ni bëgg jéggi boobu lépp dogal nga xam ne kilifa jël nañ ko ñu mën la topp nonee la ko la solo yéenekaay xam ne source a dikkaat ci li nga xam te ni moom moo nekk wàññikuk njëguk yenn ci denrée alimentaire yi mu ne baisse des prix des produits et services de consommation mu ne nag promesse honorée de Serigne Goundou et Koromack mais avec quatre vices de li nga xam ni nii moom moo nekk wàññi guug njëgug yenn ci mbir yi ñuy dunde ci biir réewum Sénégal daal digge ba topp nañu ko nañu nga xam te noonu ko waxoon woon xamle loola tax nag mu ne Serigne Goundou ak daal ñoom nag daal dinañuy jëfee promesse électorale bi nga xam amaloon nañ ko askanu Sénégal mu ne nag nga xam def nañ ko daal jamono ji li na ca nemmeeku ni nag mbir yi nga xam wàññeeku na tàmbale ak li nga xam moom moo fanweer ak juróom dem ci fanweer ak ñett journal bi ne ñu li nga xamante ni nag moom moo di suukar bi kilo bi jóge na ci six cent cinquante franc dem ci six cent franc wàññi nañ ci fukki ko xamle waaye itamit li nga xam ne dogal yooyu la nguur gi jël fexe nag ba wàññi dund gi ci biir réewum Sénégal daal dina leen coûté lu tolloog cinquante trois virgule quatre milliards xamante ne nii dañu ko gàntal noonee la ko journal bi xamle waaye tamit mu ne li nga xamante ne moom moo nekk wàññiku dund googu ci biir réewum Sénégal te di dogal boo xamante ne nguur gi jël na ko daal am na ñeenti mbir yoo xamante ne gis nañ ko ci mu daal di cay sooxe mu ne ba njëkk nag mooy ministre du commerce moom dañu ko jàppee kenn woowu ci mbir moom moo di directeur ngir nag mu daal di nouvelle yooyu la lu ñu mel nag journal bi gis ne dese na jaar woo ci ndaje moomule wala itamit ñu boole leen ci li nga xam te moom moo nekk processus bi ngir fexe ba lépp loo xam te nii a ñal na wàññiku ci biir réewum Sénégal ñu dugal ci seen loxo noonu la ko journal bi xam te nemmeeku nañ ko ci daal mooy direction du commerce intérieur moom itamit boole ko ca impliqué ko source a dikkaat na ca ca na mu gën a yaatoo waaye itamit daal di joxaat kàddu ki nga xam te moo di taskatu xibaar bi di Serigne Saliou Guèye borom yor yor quotidien mu ne nag Serigne Saliou Guèye daal daal dinay xam ne am na ki nga xam te moom moo fi nekkoon jiitu réew di président Macky daan na leen jox ay koppar ci weer bu dee li ko dale juróom ba jàpp juróom fukki million ci sunuy koppar noonee la ko Serigne Saliou Guèye daal di xamle ci biir journal bii di source a l'évidence quotidien xëy daal di waxaat ci li nga xam te moo ñeel wàññeeku ci biir Sénégal mu ne baisse des prix des denrées un cercle vicieux li nga xam te ni moom moo nekk wàññeeku njëg yooyu la daal nekk na boo xamante ni bu vicieux la noonu ko l'évidence quotidien daal xam ne xëy jox kàddu Thierno Bocoum mu ne benn fifteen ci gafak ak ñi nga xam ñoom ñoo di góorgóorlu yi moo gën foofu benn fifteen boo xam te ni moom moo cee bàyyi ko Thierno Bocoum di àddu kon ci lu jëm ci wàllum wàññeeku direction tentative de discréditer le DG maanaam ki nga xam te moom moo di njiital aéroport international Blaise bu yees di Cheikh Bamba Dièye am na ñoo xam te dañu jógoon nag ngir daal di turam yàq deram waaye tamit bëgg gàkkal na nga xamante la yore kër googulee di AIBD loolee nag mu ni daal di nañu koy gàntal noonee la ko xamee ne bi di l'évidence quotidien journal bi jox kàddu yi tamit Serigne ñu daal di am li nga xam te moom moo di ñu delluwaatee ci biir mi ca ministère de xam moom moo di le professeur Maïssa Diakhaté moom la ñu nag directeur de cabinet du ministre Birame Souleye Diop noonu la ko l'évidence quotidien daal di xamle yor yor quotidien dikkaat na ci rek ci li nga xam moo di baisse des prix des denrées de première nécessité milliards débloqués pour soulager les populations loolee moo di koppar yi nga xam ni nguurug Sénégal daal dina koy génne ngir daal di mën a wàññi dund gi fexe nag ba ñi nga xam moo bu Sénégal daal dina koy jël ñi nga xam ñoom ñoo di les consommateurs ñoom nag daal dina nangu cent pour cent li nga xam te moom moo di mesure yu gouvernement boobu Sonko daal jël ñenn ci ay boutique yi tamit la nga xam te xamle nañ ko daal mooy mburu mi daal ngir mu gën yomb ci ñoom faw ñu yóbbu ko ci fanweeri dërëm bu ko defee nag ñoom weccet du leen sonal seen diggante ak client yi noonee la ko daal xamle waaye tamit journal bi di yor yor ne nag am na ay këru tasukaayu xibaar ni ñoom nag dañu jóg ngir bañ a fay avance tabaski moo di seeni employé ku ci refuse de payer les arriérés de salaire ñoom nag ñi nga xam te ni koppar ya ñu yoreel seen liggéeykat di ay salaires yoo xamante ni ay weer a ngi nii fay ñu leen ko ñu ne nag waa groupe E-Media daal ñoom bañ nañu ne duñu fay seen i employé noonu la ko yor yor quotidien xam ne si du quotidien xëy dikkaat ci lu ñeel wàllum baisse des prix de certaines denrées de grande consommation mu ne l'état passe à l'acte li nga xam te ni ñoom ñoo di nguur Bassirou Diomaye Diakhar Faye niki démb talaata yem ak fan ak ñett ci weeru juin la ñu daal di xam ne daal wàññi nañ lu bëree bëri ci biir réewum Sénégal te loolee nag ngir mu mën a am yëkkati nañ juróom fukk ak ñett ci ay milliards yu toftal ñeenti téeméeri millions ci suñuy koppar dugal ko ci mbir moomule ceeb bi ak diw gi ak mburu mi ñu ne boobu lépp mesure nag dana daal di tàmbalee dugg moom la après la réunion du conseil national de la consommation foofee nag la ñu nar a tàmbalee doxale prix yu yees yi nga xamante ne jël nañu ko jamono jëli waaye itam ci biir journal bi di Sud Quotidien ba léegi professeur Badji moom agrégé en faculté des droits mu ne nag lépp lu jëm ci wàllum renégociation

dagaan baatu askan mi ngir nekk njiitu réew bu Sénégal sàmmoon ak yooyu lay kàddu waaye ay jafe-jafe la ci amee ndax li nga xam te moom moo di kilogramme bu suukar bi jëlee na ko six cent cinquante yóbbu ko ci francs li nga xam te moom moo di ceeb bi riz brisé wàññi nañ ca luy tolloog juróom-ñetti dërëm le public yéeni kaay nañu cinquante trois milliards de francs CFA moom la ñu daal ngir mën a amal lu ni mel des mesures pour faciliter l'accès au logement maanaam yi nga xam te ni coopérative yu ñu daan dugal ci lu ñeel wàllum logement la ñu daal di jël nag dugal ko ko yomb Jombal le public kaay nañu nekk mairie boobu ci gi coor kii di Ousmane Sonko nekk njiit la danañu ko fa wuutu ni ki ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin loolee ko journal bi xamle waaye tamit Maodo Malick Mbaye moom tamit daal dinay delloo li nga xam te moom moo nekk ndombal tànk gañ ko toppaloon ca anamu noonee la ko le public yéeni kaay xamle journal bi tamit diggaan na ba léegi ñoom gis-gis ba nga xam te amoon nañ ñoo di waa parti daal ñoom dañoo mës a daal di ŋàññi ki nga xam te moo di Tony Blair waaye njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di na koy dalal mu mel ni ne kon ñi nga xam ñoom ñoo di waa Pastef seeni démb ak seen waxi xaw na wuute lool Walf Quotidien noonee la ko xam ne ci biir journal bi waaye itamit source a dikkaat ci li nga xam te ni wàllum siège de la direction générale de Dakar Dem Dikk ñu ne nag sous-branchement électrique frauduleux depuis de longues années le Sénélec le plonge dans le noir ñi xam ti ñoom ñoo di waa siège bu Dakar Dem Dikk daal ñoom daal daanaka sàcc courant la nekke woon ndax fa nekk nag ak courant ba lakk daawuñu ko fay te itamit na xam ci noonee la ñu woon branchement dara jaaru ci yoon lu ni mel tax na waa Sénélec daal di leen coupé courant noonee la ko source a ci téeméeri soxna fi mu toll ñoom la ñu teg loxo ñoo nekk ci biir ndungu seen dafa courpir ay peine de prison noonu la ko grand panel daal di xamle direct news daal di xëy ubbi ab xët bu yaatewee jagleel ko maam Cheikh Anta l'argentier du mouridisme ki nga xamante ni moom lañ jàpp ni moo yoroon koppar yi nekkoon ki nga xam te tamit ràññeeku na lool ci yoonu murid mooy retour sur une vie de grâce kan moo di maam Cheikh Anta Mbacke moom danañu ko màggal foofe nga xam te moom moo di ca Daaru Salaam Ahmadou Bamba bi nga xam mu ngi dellu siwaat ci biir réewum Sénégal maam Cheikh Anta Mbacke borom daaru mooy ki nga xam moom moo ko dalaloon noonu la ko direct news daal di xam ne waaye itamit lu fa fukki nag fukki xar ak fukki bëy moom la ñu di def ca ngan googale loolee lépp maam Cheikh Anta moom moo ko waral maam ku amoon bëggeel la ak cofeel ci ki nga xam moom moo di maam Cheikh Ahmadou Bamba direct news dikkaat na ci ubbil